aram nanga def maa ngi fi rek bado génn gis lu bees dara beesul maa ngi jàng rek naka sa kole mu ngi fi gis na ko tey aram nanga def maa ngi fi rek bado génn gis lu bees dara beesul maa ngi jàng rek naka sa kole mu ngi fi gis na ko tey